ay demi-finale a mbin gayki mbin gayki bu Petersen moo leen wan ginnaaw ak kan Franc mbin gayki bu Petersen mbëru alxayda ma dem na demi-finale doomu ngu njaan la yagamaar mbin ngay ki waaye Zambala Libidor mbin ngay ki Franc mbaadu tey moog mbin ngay ki demi final min gay ki fara Zambala Libidor ma ñaari combat yëpp xel sustu Zambala Libidor Mbine Gay ke koy faq Mbine mbaa doo jël avertissement ah way boo taxawul da jël avertissement de Zambala ngay séen noonu Agos Libidor faq na ko mu bañ cey yàgg maar làmb tey de ay jël yu rëy fi am ay surprise yu doy waar cey loolu ndaysaan yaa ngi arène nationale Franc am na avertissement ñoom ñaar ku ne am nga benn kon yéen a toll avertissement leen cey loolu Mbine Gayki jëli na ko Franc bañ Mbine Gayki bëgg na ko jël Franc bañ waaye Samba ak Libidor xulle yaa ngi xool combat yi waaw waaw maa ngi koy seetaan de gis Franc. waaw Franc de mu ngi moom. demi final de. waaw demi final lay bëre de. mbaru Omar Tawa. waaw mbaru Omar Tawa de Omar sama grand boobu moom la faral de waaw xanaa Omar di ñaanal rek waaw. kenn moom. waaye mbin kay kii. mbin kay kii. mbin kay Sambala sol na ko Libidor bañ sol ëñ mu bañ ñu mbaar eh xale baa ngay def dox ca kaw Franc de loolu Franc xale bi da ko ndengeeñ ndengeeñ ca kaw sol ko di wër fu mu jàpp Franc xañ ko ko cëy loolu arbitre lu xew mi-temps eh yëkkati nañu libidoor mu bañ ndaysaan Sambala Libidor eh waay waaw waaw cey lamb du mën a ñàkk peer daa neex peer bilay daa neex peer ee eh, Zambala lébi door ñaari lébu kii dëkk mbaaw kii dëkk kayaar waaye kenn du Basir borom wasaare Basir bu wasaare Basir bu wasaare waaye mbin ngay fara arbitre baa ngi koy soufflé waat cey Mbaye ak Loum demi final fii boo fi yegsee faw nga am weccet ndeysaan Fara daw na jëli xale bi génne ko tànk wala doon xale bi delloo ko cey loolu xale bi nag daam doole de min kay ki néewul doole de mbërëm ñoom jib seen a peter seen ak ñoom Babacar bu mod la ma hee wóorul de min kay ki bu peter seen waa moom nag mbër muy liggéey la de day jaay de hee eh, day jaay boo demee Petersen da lay mooy kër kër gay ki Ngunjaan la dëkk ab séeréer la gis nga fa mu jàpp demi-finale yi du yomb maar kenn du bëgg a toog koor gee ñëw suukaru koor a ku am loo jënde suukar meew ak ay ñoom vermicelle ay macaroni ay saaku ceeb ak ay diwlin beurre ana mayonnaise ak chocolat ay saucisson a yàgg maar boo daanee ak huile waaw mooy diwlin di lool kay jar na xeex ba dem final nag yóbbu million ak lu topp mbaa deux millions ah ah ku ko eh, mbin ngay ñàkk nga daanu nga pare nga daan nala daan na la jógal sangu ji mbin ñibbil kër ga Fara finaalooti na Fara dey xalaat naa boo sàgganee des na ko nommé buuru arène nationale e Zambala wër nañ la Zambala fàq dawal nañ la caxabal na ko caxabal buti na ko da koy daan Libidoor wër na ko Lebuba wër na ko daan na ko Libidor daan na la bu yàgg oh, oh, oh nee ko cinq nee na naa ko juróom juróomi yoon Zambala waaru na eh way doomu Kayar ba daan na doomu mbaaw xoolal Zambala na mu tooge loolooy sonu oh, oh na sonu daa sukk daa waaru jógal alarba bii paase trois CNC moo ko jëloon demal sangu ji oh Zamb koy dabi. mu koy dabi rafet na waaw lii rafet na belle image belle image belle image Boy Sil ñaan na ko suuf Zambala village fii lañ ko dóore woon mu daanu fii la ko Aline Sey si ñoo woon Kuuba ndeysaan waaw kon final bi xam naa ma jox jigéen sax gis naa ko ci biir ak maam Diarra Cheikh Anta Assane Ndiaye borom Bawol production Moussa borom marché asalem ak a baaxi ngoomu fara ana fara kaay way wa jóg na fara à Libidor à yaa ko doon laaj yaw Libidor jot nga ci e eh way way wa Fara Libidor ndeysaan Libidor yi tànk lay wër ban heure moo jot 23 tey la samedi 10 avril Baol sans frontière sargal Yaxya Jóob Yékini gis naa fi Tapha Tine gis fi Yaxya Jóob Yékini ndeysaan arène bi neex na tey ñu nga ja final ba Equivox TV arbitre nag leen leen taxaw leen ngeen bëre Libidor ngemb lu weex Franc bu ñuul Parcelles Kayar e boo xoolee ñoom ñaar seen bëre du yomb ndeysaan Libidor mbaa duñ la faq Boy Sil na lese ba waaw turandoo Sil Baldé quatre millions yàgg maar ñu ngoongu ca final ba Franc Libidor ndeysaan ndeysaan location oto bu baax soo ko bëggee noo demal RTS parking ba laajteel Pape Niane oto yu baax ngay am location toppal loolu mi temps ewa ñaari mbër yaa nga ca de avertissement mbaa am a léegi nag ñoo toll avertissement ndeysaan faq jël na tànk ba mu dóor ko tànk mu bàyyi ewaay eh waaw waaw yàgg maar libidoor fara da koy puus avertissement avertissement la ko bëgg a jox libidoor da koy jël dootu la bàyyi dala koy jox away ah avertissement la ko bëgg a gis nga da koy jël avertissement waay bi combat mi ti waay Libidor soo bërewul da ngay ñàkk daw na jël ko war na ko mu limi Libidor soo bërewul da ngay ñàkk te bu jàppee xalaat naa Franc yóbbu xaalis bi de lii Franc de boo bëggee dégg-dégg arène nationale daa ni moo filal ba sangam loolu laa gis de di fi dicté ay luwaam bu gagné bi de mu nekk ñetti trophée gaata fi amagu ren fii su Franc jëlee bi muy ñett ci yim fi jëlagu Libidor temps bi day jeex nga ñàkk gis nga noonu mu ko ndengeeñ Franc du bàyyi jeex na xoolal ne ko taxawal bëre déet bu leen puusante away Franc gañe na ko Libidor ak Franc arbitre yaa ngoo nguy ñëw xoolal mbooloo may ñibbi Franc gagné na ko kon ren yàgg maar la ma la waxoon Franc jëlaat na tournoi ba quatre tournois yi fi amoon kaay. moo fi dama ndengeñ dama buux ah. rek ndengeñ bi baaxul mooy ndengeñ taxaw. kontaan. su eh, door am problème loo loo nengeñ boo nengeñ da ngaa def effort wante nengeñ bëriwul bu defoon action bëriwul man maa ngi koy jàpp mu fenn bàyyi nga sama yaram bëri mu yàgg maar li bi door d'accordul de Sitor ki contesté na de am na am na droit contesté am na droit mais pour mu xam règlement bi rek règlement bi waxul ne ndengeñ amul dañ ne ndengeñ nga taxaw loolu moom passivité la maanaam ubbi woo bëre bi mais ndengeñ ngay puus walla ndengeñ ngay xëcc loolu action la mais taxaw rek tëj combat bi la ñuy bañ voilà. loolu moo tax mu ñàkk. waaw noonu loolu avertissement boobu la am voilà. Franc sa waay contesté na de. Ah. na de. <laughs> arbitre la maître du terrain lu wax dara. amul lu ma ciy wax. mais ren boo xoolee fii quatre tournois moo fi amagu trois yëpp yow la yàlla dogal nga jël ko. waaw loolu mbir suñu borom la rek mënuma kenn damay jéem rek. Mhm. Fara mënoo kenn mais tamit ci côté bëre la ñuy wax gars yi daa mel ni da leen gën a maîtriser lutte simple parce que da ngay gis leen di pousser des fois bu avertissement jotee da ngay gérer jox leen ay avertissement. ah affaire daal xam ma compétition la rek yaa ma gën a xam quoi gars yëpp ay ndaanaan lañu ay champion lañu xam nga mënuñu kenn dañuy jéem rek dañuy góorgóorlu rek. di ñaanal ñëpp yàlla na ñëpp am jàmm. kii bëggoon suukaru koor nga xañ ko ko nii. <laughs> ba Bakar kii champion la waaw am na ñoo xam ne ñëwoon nañu am na ñoo xam ñëwoon nañu premier tour lañ perte comme moom kii wu leen voilà. loo wax ci Bawol sans frontière bi. waaw xam nga ñii ñooy lamb. kii xam nga ko ba rajoon bi ak Assane Ndiaye moom defe naa xam. kii kii kii kii xam naa ko bu baax grand bi kii ndaanaan la maa ngi xamee ci Moussa Dioum grand Moussa Dioum vraiment borom baax la. maanaam li ma ko xam yëpp ci làmb laa ko xamee ba may nekk xale ba may toll ni ci làmb laa ko xamee yàlla ko yàlla fay. kële xam nga ko Mbaye Diouf ma le. jàppal jàppal muy ñëw kii bi muy ñëw école fee interset boobu mu ngi daan bàyyi ma doon loolu yàgg na boobu laa koy suivre. Assane Ndiaye mi nga ko. waaw kii moom ndaanaan la lu ne def na ko fi. Hmm. looy wax bawol bawol yi tey. waaw ñii ñooy làmb ñii ñooy lamb kenn mënul wax làmb te du wax ñii waaw ñii ñooy dem liggéey daan doole. trois heures ñëw sañ sa ba rafet toog si stade bi di seetaan ñoom làmb rek. te waa Yaxya Jóob Yékini ci bés bi. waaw ah, kooku mooy c'est le meilleur kooku champion la ndaanaan la quoi. Mhm. kontaan ci yow. waaw bëgg rek amiin waay sa trophée. roi des nga jëm. non roi des la jëm sama booy la ñii ñii maa leen formé ñoom ñëpp maa leen wutal licence samay booy la ñu. mbër mu mel nii ngay champion yaakaar naa ne loolu nga def ko ci lam technique bu ne nga nga bëree ko kii boo ko gisee muy bëree looy looy yëg. waaw dama gis ne champion la parce que li muy bëree ah dama ciy gis sama bopp parce que day bëre day joxe moo tax mu am li mu am dara jomb ko parce que xale la aussi yar bi mu am mën na koo may lu ne parce que man fu ma fekk ci làmb day day déplacé wu ñëw ba ci man parce que bi ñu xamee ci Moussa Dioum la ñu xamante woon wax na dëgg inte ma bëreeg Baye ma Ndione daan ko Moussa di pare su doom ma ñëw fa di préparé ak ñoom parce que ñunu neen la quoi mais ku yaru la ku baax la tamit yal na ko yàlla jàppale fu mu bëgg a jëm ci làmb yal na ko fa yàlla yóbbu ci kattanu yàlla ak mbaaxam. loo loo ciy teg. waaw xanaa di gërëm ñëpp rek xam na di ñaanal ñëpp seen koor ngeen di dugg yàlla na suñu borom def jàmm ngeen commencé ko ci jàmm jeexal ko ci jàmm. mais dig nu nag comme waree nga moom dig nu gunge. incha allah amul benn nga bokk ci koor gi. kon nag yàgg mar defe naa ne tey ah moo nekkoon samedi 10 avril 2021 Fallou Ndiaye moo fi woote woon drapeau Baol sans frontière sargal Yaxya Jóob Yékini Yékini teew na waa Baol tamit teew nañu ànd ak seen maire Jibi Thiaw ak ki nga xam ne moom mooy di Bada John ak ñoom Assane Ndiaye ak ñoom ñëpp ñëw nañu muy rafet a rafet a rafet macha allah kon daal di féliciter Franc di encourager Libidor booy Sil tamit ñu ngi koy féliciter ci poids léger bi ndax moom moo jël di encourager xale bi nga xam ne moom la doon bëril te mu dëkk Grand Yoff loolu mooy lamb chaque jour rek dina am ko gagné am ko perte mais di ñaanal tamit promoteur yëpp. ku ci nekk rek lépp loo sumb yàlla na ko daan leen wax ne Equivox su TV ak Babacar ak Yagg Maar lamb 100 pour cent du mën a ñàkk image yu baax te leer waaye yàgg tey faw ma nuyu sama waa dëkk parce que dañ na drapeau Baol sans frontière te man Baol laa dëkk donte nag kën moom ñëpp la fi nekkal man làmb rek laa fi nekkal waaye faw ma nuyu sama waa dëkk rek waa ak yaay faw ma nuyu leen yàgg dégg nga gaay yi niñ lay bégee kon yàgg dig daje beneen yoon.